rahmatullahi wa barakatu ñoo ngi bokk yëpp di nuyu di wax ne ñu ngi tudd Sayxuna Mbakke di doom ci sëñ Saliou Mbakke mu sëñ Abdou Dia war nañ koo laaj ma ton kàttan ci lu jëm ci wàllu doxalin réew am naa ko ci donte ñi ko bëgg bari na. waaye ci biir ñi ko bëgg am na ci kenn koo xam ne ki jàpp naa ne moom wóolu na ma itam ne man na ci génn sénégalais yi tey bu candidature am jàllee kenn mënut a tee moom mu jël premier ci premier tour yi. du du baatin du baatin sayir képp la analyse boo koy def li nga jaar ba jàll ci ci nga def analyse waaye li nga ñëwagul xamoo ko. bu dee election élection moom yàgg def yag na ko fekke resultat yi ci da genn xamna ni muy demee waye ci election yi ñu jublu candidature yi nga xamantene wax nañ ne ñi nga xamni ne déclaré nañ ne bëgg nañu nek candidat suñ suñ ci jàllalee ñenn amna ki ma wax bu ci muy Ousmane Sonko bu ci moy genn premier bu dé ci ñi nga xamni ñam nga wax nak ku mel ni Idriss Seck ku mel ni président Macky Sall mom mi nga xamni mom lañu xëccolim yor ku mel ni ñeneen ñi ci des ñooñu xëy na danañ génn waaye li ma leer mooy Macky Sall moom bu fekkente ne élection yi jaar na ci yoon wi war a jaar moom troisième position lay ñëwee du ñëw sax deuxième nga xam ne deuxième tour bi du ci bokk. li ma jox mooy premier bu fekkee dama ne woon dama daan wax ne bu Karim Wade di ñëwee Macky Sall Karim Wade ñooy dem bu Macky Sall bu Karim Wade di ñëwut Macky Sall euh, Ousmane Sonko ñooy dem parce que Idrissa def na ñetti élection. élection yi mu def yëpp dafa wàcc kon mënti yéegaat kooku dañ koy euh, disqualifié ñi ci des kenn ku ci nekk ñi mës a dem élection résultat yi am ay 5 virgule nangam kooku mënta gañe élection ñi fël génn ñett ci nekk ñoo xamante ne bii ñoom la wax muy Bougane Gueye ak Malick gàkku ak Ousmane sonk moo ñett ñi nga xam ne génn waaye bi ci gën a nekk phénomène nga xam ne moo moo war moo jaaxal nit ñi te mooy génn surprise mooy Ousmane Sonko. bu bu candidature am jàllee. mooy mooy mooy jiite réew mi. lu mën a xew parce que premier tour bi day jàll deuxième tour bi jàll deuxième tour moom moo jàll.